ndax diwul Seydou la àndal ci cadreur bi Ndandi Fall takkee Grand Yoff Papa Boy Djiné takkee Gunaas bot drapeau Guédiawaye tey Rone moo ko toogal kët Malick moo arbitré woon combat ma seen Modou Lo ba leen ne làmb nangook li làmb bañ door mu daanu jël kat appi jëli la ku teg ans jëli la wëlbët gàng jëli yanu ba ci ko suuf moom amul lu muy wax jógal nga ñibbi Malick googu noonu Malick Ngom la mu arbitre woon Eumeu Sène ak Modou kiro Thiès Léopold Sédar Senghor laaj na papa laaj na papa laaj na papa laaj laaj ndaan di wax na leen sifle rek ngeen di boo leen boole moo di tàqale Malick Ngom ngi noonu ànd ceeg Babacar le grand maître arbitre Malick Ngom bisu mag yi moo koy arbitré cey lam bu toll fi géwél rek ngay dégg waaye di ñaan ci réew mi jàmm di baalu nit ñi àq ci julli gi jóge di wax nan ma baal àq àq daa sew mën ngaa tooñ ñi te yëg man Fadal maa ngi baalu ñëpp àq tey ñaan nit ñi baal ma man de baal naa ñëpp bu yàgg yàlla def jàmm ci réew mi Modou Modou ne ci àll bi yàlla may leen ay këyit Fatou Fatou ne ci àll bi yàlla may leen ay këyit di nuyu sama soppe yi Malick Ngom ak laaj lu muy wax daa mel ne avertissement la bëgg a boo ci ne na jéggi mi Abdoulaye Ndiaye. waaw. loolu noonu rek laa may moom daan di. jaadu na. Malick Ngom laaj na siisam laaj na papa laaj na ndand sifflé na samedi 8 juillet 2023 21 heures 42 minutes fii ci arène nationale Sambaye ko tëgg woonu fi Papa Boy Djiné Ndandi Fall Papa Boy Djiné jógee Gounass Ndandi Fall jógee Grand Yoff muy combat boo xam ni ñu ko doon laaj ay weer di ko waaj ay bis tey day yegsi nañ ci guddee gi la ñuy wax Fadel ci micro bi Seydou ci cadreur bi Papa Boy Djiné kabar na ñoom ñaar kenn ku de pied droit nga jiital papa nga tàllal loxo bi ña ngay dawee wet arbitre da ngay ñoom bëri leen ci digg géew bi ñaari mbër yaa ngay léewtoo Papa Boy Djiné Ndandi Fall Ndandi Fall tibb suuf bàyyiwaat ñaari pied droit la cey làmb toll fi géwél ngay dégg géwél ay wax géwél ay tëgg dégg nga noonu ñu ngi doon di ji njaajaan ci ne Djiné xam sa te xamoo këram papa xanaa dina war a déglu loolu Papa Boy Djiné Djiné la. waaye papa yaa ngi daje ku mën a bëre muy Ndandi Fall papa booy jinne Ndandi papa booy jinne Ndandi diggante Grand Yoff ak Guédiawaye wala diggante Grand Yoff ak Gounass papa booy jinne ña ngay léewtoo ña ngay léewtoo kenn cokkaasagul kenn dóoragul ndandee ngi dox di ñëw ci ci suuf. dara amagul bu leen nu guddee danoo yàgg ci làmb ji Papa Boy Djiné daan di faal ñaari Papa Boy Djiné daan ku ne ngi yër sa Papa Boy Djiné daan di ngi dox ci kawam ndax Papa da ko bëgg a bàyyi Papa Boy Djiné daan Papa Boy Djiné Ndandi Fall Papa ngi aj garde bi ci kaw di ko yëngal Ndandi Fall moo ñu wan ginnaaw Papa la ñu Ndandi Fall moo ñu wan ginnaaw Papa Boy Djiné la ñu jàkkaar lool Papa Boy Ndandi Fall arbitre gi naan leen bëre leen Papa Boy Djiné Ndandi Fall Ndandi cokkaas Papa aj garde bi rek Papa Boy Djiné Ndandi benn congo lay doon benn congo lay doon bu ñu mu jeex maa la wax li bindal Papa Boy Djiné Ndandi Fall Papa Boy Djiné Ndandi Fall na Malick a ngi waxante ñoom nee na bu ngeen demaatee bu ngeen laa joxe taxaw leen fii ba ne bu ngeen demaatee ma jox leen te ci tam xarit la ñu jëm ku dagg sa xaalis doo mën a togg cere ju baax Baba Djiné Ndandi Fall Papa Boy Djiné Ndandi Fall Papa ngay taxaw na Papa Boy Djiné Ndandi Fall moo ñu woon ginnaaw Papa la ñu jàkkaar lool ña Papa Boy Djiné Ndandi Fall ña ngay ñaari pied droit la ñu teg Papa Boy Djiné Ndandi Fall ñu ngay ñaari pied droit la bu neeruñ ko mu jeex arbitre ngi taxaw Papa Boy Djiné Ndandi Fall ndax du da koy jël da koy jël da koy jël Papa am na benn ñu ne ko taxawal bërewaat siflewaat na Ndande gi avancé waat papa gi arrière papa samp waat na. Papa Boy Djiné Ndandi Fall papa ngay tàpp pooj ba kee ngay tàpp yemb la papa fëgg na pooj ba kee fëgg gaw papa cokkaas papa cokkaas Papa Boy Djiné Ndandi Fall la ngi dox waaye papa gi aj garde ba jàppante dañu lu xew daaw jàppante daaw doon lu xew ñoom ñaar Ndandi Fall daan na ko Ndandi Fall daan na papa Ndandi Fall daan na. waaw papa yi ay jàmm la. jàppante dañu lu xew daaw doon jàppante. Bombardier yàppate nañ lu xew ñoom ñaar ndaan ni faay waaye Papa yi ay jaar na ma yàppate nañ lu xew jaaw noon jàppante daanu ni jàppante yàppate nañ lu xew ñoom ñaar you fall